Nederland. Donc, on a rencontré excellence rencontre. Bon, nee na parce que commission bu ñuy wax ni loolu wóor na am na commission dana jóge Sénégal ñëw fii dem Bayern ndax ñu fi nekk ñu ñoom ak Sénégal yi ndax loolu am na wala amul parce que ñoom gouvernement allemand da leen sonal suñu ñaan Sénégal yu bëri yu nekk ci wut asile te loolu moom mënuñu ko gëm te mënuñ moo tax ñu ba après gouvernement yi plusieurs fois marché wu dégg bon dégg ñu ne délégation de Sénégal yow xool am na wala amul léegi mais nee nañ ñoom ñoom ambassade yi ñu dimbali Allemagne suuf si ñu excuse Sénégal loolu moom du seen. alors ñoom ñoom sax mënuñoo gëm ne Sénégalais yi ñoo dañoo ñëw pour demande ak suñu dëkk dafa am liggéey wala nit ñi de. non non dafa ñu dafa ñu. ñun bu ñu awoon liñ bëgg duñ génn foofu. waaw may ma rek man man damay rendre compte waaw man moom man man damay rendre compte rek man man du ma dugg si détails yi man damay rendre compte. li ma wax rek laay wax waaw. Ah. donc mu ni moom daal ambassade bi ñëpp xam nañ ko fii daal allemand yi yàgg nañu indi fii ay nit pour delloo leen Sénégal mais ne ku xam ambassade bi xamal ni ambassade bi du coopéré ku ñëw fii dañ lay laaj wax bëgg nga dem wala bëggoo dem boo bëggul dem te wane woon te indi woon këyit boo xam ne wóor na yow sa sa sa origine sénégalaise c'est indubitable commission bi yi am na donc commission yi dañu ñëw am nañu intention yu leer te ñëwoon na fii pour vraiment yàqal Sénégal yi ah, ambassade si si bopp waaw donc ñoom ñëwoon na fii yàqal Sénégal yi mais dana bëgg rek affaire bi leeral ko yoon ñu bàyyi ñu wax Sénégal yi parce que Sénégal lu ñu waxante dëgg nee na Sénégal moom démocratie waaw ku ñëw fii Sénégal réfugié moom dañu koo xam ni sa réew sa réew dana la xatal amoo liberté ñu noot la da ngay réfugié nga daw sa mm-hmm. Sénégal moom nee loolu amul Sénégal état comme Sénégal war na ñëw war daf nañ kër Sénégal ñëw dem Sénégal nga jógee daloon nag moo tax nga daw Sénégal nee na moom moom mu mun a dimbali man Sénégal ñëpp xam nañu moom Sénégal loolu amu fa mais boo ñëwee fii néegi moom wane lenn moo la fii boo même bu dee xam nañu Sénégal nga def mais boo ci taxawul kenn mën la yóbbu par waaw identification bi ni que

donc les autorités sénégalaises en fait uniquement la population sénégalaise. non non non attends non non donc moi qui te parle j'ai été refoulé en 2006 en Espagne sur l'île de de de donc on avait dit que la population euh, la la délégation sénégalaise n'avait absolument rien signé et que la et que la délégation sénégalaise est venue et nous a forcé la main à signer par force. Et on je faisais partie des 76 personnes qui ont été refoulées en 2006. Donc, je ne peux pas croire que l'ambassade puisse dire qu'ils ne vont pas accepter et qu'il y, y, a des réseaux sociaux qui disent qu'ils ont reçu de l'argent. En fait,

Pour Berlin, là, Est-ce qu'ils ont reçu l'argent ah, ça, je ne sais pas. <laughs> Ça, je ne sais pas. Mais non, Il a dit quelque chose par rapport à. Il y a une déclaration qui a circulé qu'il y aurait 1 milliard 800 000 euros. Qui a, dit ça Je ne sais pas qui a, dit qu'il y, a, il y, a, il y, a, il y aurait 1 milliard 800 000 millions qui seraient donné au gouvernement sénégalais. Voilà. Depuis le Sénégal, ça se être être être bi au Sénégal depuis Sénégal ça ne peut pas faire ça ne peut même pas faire somme à faire servir que dañuy jox un milliard pour envoyer les les les les les Sénégalais mu ñu information ça ne peut pas être euh, vérifié parce que depuis, depuis 1960, on ne peut pas avoir 1 milliard, 8 millions, ils n'ont pas dépensé au Sénégal. D'accord, nous dañuy laajte rek mais nous bëgg a xam ndax signature bi moom am na wala amul loolu bëgg xam ndax ñaari ñaari ñaari waaw accord bi am na wala amul. lu am lu am moom mooy Sénégal dafa am accord de partenariat entre l'Union européenne. pour que nous rapatrier doomu Sénégal Maïma. wala. may ma may ma da nga ma posé question bëgg mbay mu accord Bob. effectivement européens yi bëgg nañu Sénégal dugal ci damay delloo sama samay nit européens yi bëgg na ko trop Sénégal benn côté moom war na leen foofu lu leer bu ngeen bëggee Sénégal yi nekk ci bëgg ñibbi dellu ngeen dimbal leen ñu dellu Sénégal am fa dara nous on coopère sur ce plan là mais lu jëmee si jëlee Sénégal di leen delloo

Öyle. léegi ana waa monsieur déplacé wu seen xel dal na ko rek